Amina dama lay bàyyi nga doxal. waaye. Mm. Euh, kon nag dañu ñëw euh, jàll si leneen. Mm-hmm. gannaaw euh, revue des titres yi jeex nag. Mm-hmm. ñu ñëw ci ki nga xamante ni moom moo di El Malick Ndiaye di suñu ministre des transports moom nag ñëw na ci affaire ki nga xamante ni moom moo di Ahmed Suzanne Camara. Mm-hmm. ak ki nga xamante ni moom moo di Bah Diakhaté. ba pare nag mu ñëw jàkkaar ñoom. ok alors euh, monsieur le ministre rupture mooy même pas un mois ñu jàpp. ku ñuy wax baa jaxate def ci kaso bi jàpp Imam Ndaw def ci kaso bi rupture mooy Amath Suzanne Camara ñu dégg ko mu wax li mu wax li mu wax man du ma ko wax de. <laughs> non non non non non non déglu ma non mais comme li Ousmane Sonko doon wax man duma ko wax ah. <laughs> dama ne non dama ne li dama ne li ma bu baax. nañ dama ne. li li Amath Suzanne wax duma ko wax. nañu jàll bokkuñu ay position ah, bokkuñu taxawaay bokkuñu dara mais dama ne. ndax rupture parce que rupture bi ñu doon xaar mooy ay la mooy daganal mooy mooy daganal lu dul yoon. non waxuma daganal mooy rupture boobu ngeen doon xaar. non non non waxuma. déjà dama bëggoon rek nga jaxase laay bañ. dafa mbir yi dama bëgg mu leer. nangu nga ne kii di sëñ bi jaxate ak sëñ bi ndaw wax fa dëgg yàlla nangu nga ni lañu def defuwul. la ñu wax waxuwul. yoon moo def liggéeyam non non loolu dafa dul lu bees. déedéet loolu sëñ bi. loolu loolu dafa gis nga mbir dama la dama lu fi kenn waxuñu fi fi kenn gis nga mbir waxuñu fi lu fi kenn deful. gis nga mbir ngay wax ni c'est trop simpliste <laughs> nga mbir doomu aadama. ok gis nga doomu aadama bu mu mënti doon. Mhm. soo bëggee xam mbir ndax garaaw naam garaawul da nga koy natt ci sa bopp wala nga natt ci buñ ko waxoon sa wayjur naka lay def ci yow. foofu ngay xamee ndax mbir mi garaw na am déet ndax danga am njaboot am ay doom am soxna ñu xëy teg ci si yow der boo xamante ne ni mën na tax sa njaboot ila abada. mais da ngay politique dégg nga dégg xam nga nga tey politique. da ngay politique de est ngaa dégg. no da ngay bàyyi ma expliquer la rek. xam nga politique dafa justifié wul yenn yi moo tax ma ne la encore une fois lan moo am solo mooy yoon def liggéeyam xam nga tey. li nga waroon a wax mooy lu tax. Euh, loolu moo nekk li nga xamante ni moo di euh, kàddu yi El Malick Ndiaye jëmale ko ci euh, ki nga xamante ni moo di Ameth Suzanne Camara ak Ba Diakhaté voilà ñoo ko déggandoo ginnaaw euh, El kàddu yi nga xamante ne ni yëkkati na ko jëmale ko ci ki nga xamante ni mooy Bah Diakhaté ak ki nga xamante ne nii moo di Ahmed Suzanne te ñu mujjee ko daal di euh, teg loxo ginnaaw propos yi xam ni ñoom ñaar ñëpp daal dinañ koy yëkkati jëmale ko ci ki nga xamante ni mooy euh, le président de la république ak ki nga xam ne nii moo di le premier ministre mu nekk li nga xamante ne nii juste dafay wax rek ni même bu fekkee tamit rupture la ñu woote mbir mi nag am na yenn kàddu yoo xam ne bu jubee gravité bi balaa nga koo xam da nga koy natt ci sa bopp wala nga natt ko ci say famille sa papa wala dara nga natt ci kàddu yi bu ko defee la dans ce cas nga xam gravité bi nga xamante ni moo ci ne te Ahmed Suzanne Camara bu lépp weesoo kàddu yi mu yëkkati encore une fois ñaaw na ëpp na même su fekkee ni yow euh, gouvernement bi nga xam ne ñoo fi nekk àndoo leen sax euh, nit nit nit carrément sax bu dégloo yéen nii dina xam ne lii nii warul te wax li ñuy wax mi ngi nii boo xasee ba wax rek jeex na te li ci gën a grave mooy tamit. même biñ ko arrêté sax biñ ko laajaatee ci propos yi moom dafa dëggal boppam ni moom la mu waxoon tey la ko gën a wax te moom bu ñu ñëwaatee tuuti sax moom ci ab plateau euh, euh, ci waxtaan bi nga xamante ne nii mosoon naa am moom mii daanaka euh, musoon nañ ko ci sax gifle wala ma ni rek mbéj ci yi nga xamante ni nii eh, yu mel nii la ci propos yi nga xam ne ab waxtaan la sax mosoon nañ ko ci mbéj mu nekk li nga xamante ni nii daal rafetul ci le président de la république non seulement euh, le euh, statut bi nga xam ne nii am na ko mu nekk njiitu réew le première ministre daanaka ak instruction yi nga xam ni le président de la république daal dina koy jox te tamit ku respecté institution yi respecté li nga xamante ni nii moo di texte yi fi nekk respecté Sénégal xam nga yéen nii doo ko jël di ko tenir jëmale ko ci ki nga xam ni mooy le premier ministre donc yoon la euh, yu mel nii su amee yoon ci boppam nag daal di def li nga xam ni moo di liggéeyam ndax it lu mel nii euh, bu amee euh, yoon la ñoom it ñu daal di leen di yar wax leen carrément lii ak lii du waruñu ko wax au waruñu ko def mu nekk li nga xam ni daal moom wax na ko ni que le président de la république li mu wax lii ak lii caisse de dépôt yi mu wax fekk fa dara loolu du dëgg le premier ministre du dëgg xam nga ak manière bi nga xam ni daal wax na ko looloo tax fi mu ne nii moom ñu daal di koy teg loxo ba tax tey jii si alxames ji lañ ko fas yéene daal di déféré pour wane rek dossier boobu moom dossier bu dense la comme ni ma ko waxee woon sànq rek sarax ma rek bu fi rey. Euh, jërë nga jëf euh, kàddu yi euh, daf may nekk lépp yëpp moom wax na ko ba pare. Mhm. ndax tamit bu dara njiitum réew mi la doon waxal ak ki nga xamante ne moo di son premier ma wax sax son premier ministre mais le minimum mooy que mu ki nga xamante ni moom moo ci le président de la république di mhm. Bassirou Diomaye Faye. Mhm. waaye yëkkati yenn kàddu yi di ko jëmale ci njiitum réew mi tamit. day nekk mbir moo xamante ne tamit lu doy waar la. waaye tamit le ministre El foofu rek. àdduma si loolu rek ñëw na ci ki nga xamante ni moom moo ci eh, imam Dramé eh, gannaaw kàddu yi mu yëkkati woon ni que moom ci jëm boppam eh, du jël benn appel ku ko soxla doo ko jot moom indi na ci ay leeral indi na ay réponse ci mhm. loolu noonu